على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلا صراطك المستقيم وعلى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah. nee moom mbay loo bokk mbuus ñoo bokk mbuus la loo taxal moom Abdoulaye nee na benn la tabaarakallaa gërëm nag suñu ministre euh, Abdoul Ndéné Sall daa doon ministre doon buur ndax ñoom buur la kon lii mu doon ministre non la rek. nguur gu fi fekk nguur la rek ñu sant ko bu baax gërëm ko ñëpp dañuy jóob si ne ñu ngi fa mu wàcc ko jox ko dalal Issa Mali di ndey jóoru jóob daawoo la nga neli di làmbi ñu pap sëriñ bay moosu fa tabaarakallaahu ñëw teew ah kon nag jóob ñu lay ndokkeel hmm? como, como vamos pegar no Egito, no que do página. Que você suscita ainda. Ali Allah Talano. Tá